voilà salaamaaleykum mbokku internet du Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu dalal fii kii di Moustapha Cissokho mu nekk responsable politique ci parti boobu di Alliance pour la République muy militer à la commune des Parcelles Assainies ngay coordonné ci bërëb boobu lii di COJER mais pare ngay euh, nit koo xam ne ku jege premier ministre Amadou Ba mi nga xam ne moom lañ tàbb euh, pour mu en tout cas porter la candidature euh, de de la coalition benn Bokk Yaakaar. ci élection yi di ñëw en deux mille vingt quatre Moustapha ñu bàyyi la dèjà nga nuyoo ak euh, suñu mbokk internet yi laataa ñoo tàmbali waxtaan wi nga xam ne dañ koy jëmale ci mbirum politique ak lépp loo xam ne dafay concerner Sénégal. voilà euh, merci beaucoup euh, maa ngi lay nuyu bu baax ah, ci euh, invitation bi maa ngi nuyu aussi mbokku internet yi ñu nekk fii Sénégal ak ci bitim réew vraiment di am contentement ci ci invitation bi ak di jàkkaarloo ak yow. nga bokk en tout cas APR l'alliance pour la république parti wu président Macky Sall mi nga xam ne wax na sénégalais yi moom du bokk ci élection yi di ñëw mu nekk euh, nouvelle boo xam ne sénégalais yi bëri dañ ko apprécier mu nekkoon tamit coup de tonnerre ci biir euh, parti bii di euh, l'APR yen nax ngeen ko dundee woon yéen ñi nga xam ne ay militants de première heure ngeen ci biir parti bi te ngeen doon pousser président de la république pour mu présenter candidature am pour 2024. voilà donc euh, merci beaucoup donc euh, man li may wax foofu mooy d'abord di euh, gërëm di sant le président de la république Macky Sall ci grandeur bi mu am ak hauteur bu mu jël vraiment pour tey au fait au de la même du Sénégal à travers le monde donc nit ñi bëri. naw nañu Sénégal ci démocratie am naw nañu Sénégal ci décision sage bi nga xam ne son excellence le président de la république Macky Sall euh, jël na ko c'est de ne pas se présenter pour 2024 donc je crois que loolu képp kuy sénégalais donc loolu vraiment loolu dafa dafa de dafa de mbégte vraiment ci nit ñi surtout ñun mi nga xam ne ànd nañ ak moom parce que les gens ce qu'ils n'ont pas compris le président Macky Sall bind na sa benn livre wax na ko fa mais peut-être que euh, nous avons une opposition ñi nga xam ne ñoom tout leur débat su portait sur la troisième candidature du président de la République Macky Sall et ce n'est vraiment connaître euh, le président Macky Sall parce que le président Macky Sall dire lépp lu mu wax daf koy respecter donc il avait promis au Sénégalais ni ñaari mandat lay def donc je crois que loolu promesse boobu tenir na ko te siggil na Sénégal ci kanamu àdduna en tout cas ñun encore une fois gàcce ngalaama son excellence le président de la république. yéen ci biir parti bi xamoon ngeen ne quand présenté dina bokk ci loo xam ne dafay yëkkati démocratie wu Sénégal dafay yëkkati darajay président de la république au niveau international mais taxaw ngeen quand yaay nekk suñu candidat lu tax ngeen ko doon poussé ci loolu. parce que constitution bi moo ko may donc constitution bi may na ko donc il pouvait moom moo ko bind wax ko mu ne moom day respecté kàdduwam ak lu mu bind donc loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax mais ñun en tant que militant wala responsable bu ñu sañoon le président Macky Sall présenté wu parce que constitution bi moo ko ko may mais moom comme moom mu ne day respecté kàdduwam donc ñun duñ def leneen lu dul rafetlu ko te aussi ko comme aussi dafa sigil Sénégal à travers le monde waaw. d'accord mu xaar ba heure bi ko neex mu wax nit ñi kan la tànn pour mu. porter la candidature bi nga xam ne mooy candidature benn bokk yaakaar benn bokk yaakaar mu doon coalition boo xam ne moo gën a gudd fan ci coalition yi fii ci histoire politique fii ci réew mi mu téye ko avec une main de fer fexe na ba leader yi ñoom ñëpp quand même ñu mànkoo musul am ay xiiroo musul am ay tasaaroo mu tànn kii di Amadou Ba mi nga xam ne quand même ci biir parti am déjà il est contesté nan ngeen di dundee contestation interne boobu nga xam ne am na ko ci biir APR. mais li nga wax fii am solo nga ne le président Macky Sall dafa jël donc euh, loolu yëpp day wane ni choix boo gis dafay métti donc aujourd'hui bu jëlee temps pour choisir ça veut sa prouve que ni dans Benno Bokk Yaakaar ou dans l'Alliance pour la République aujourd'hui il y a des en fait il y a des cadres des des des présidentiables ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla tey képp ku mu fa tànn donc je crois que mun nga jiite réew mi mais yàlla nag dafa def tànneef bi dal ci le premier ministre Amadou loolu d'abord sant yàlla la te aussi le premier ministre Amadou aussi daf ko fa xaar ba loolu fekk ko ci donc je crois que encore une fois ñu ngi féliciter le premier ministre Amadou Ba surtout ñun mi nga xam ne Parcelles Assainies lañ dëkk wax dëgg fa yàlla le président Macky Sall sagal nañu parce que tànn na suñu doom tànn na doomu Ndakaaru mais tànn na doomu Sénégal parce que man jàpp naa ne sénégalais bu nekk da gis sa bopp ci le premier ministre Amadou Ba waaw par rapport ak valeur yi muy par rapport ak éthique yu muy incarné par rapport vraiment ak compétence bu muy incarné par rapport ak leadership bu muy incarné donc je crois que aujourd'hui sénégalais bu nekk da gis sa bopp ci le premier ministre Amadou je crois que yow xam nga ne nu ñu xamee le président Macky Sall c'est un génie politique donc moom mii sax xam na ne choix bi du nekk choix affectif donc day doon choix bi nga xam ne c'est le Sénégal destiné Sénégal la donc je crois que choix boobu bu ko porté sur la personne du premier ministre Amadou Ba je crois que choix bu baax la donc dañuy ñaan sénégalais yi au de la même man je dis des partis politiques dañuy ñaan sénégalais yi dañu jàppale seen doom seen i mag seen i seen i nijaay seen i pap le premier ministre Amadou Ba pour que yaakaar bi nga xam ne sénégalais yi am ko ci moom. yaakaar bi nga xam ne le président de la république Macky Sall am na ci moom am na ko ci moom donc yaakaar boobu yaakaar boobu bañ a tas donc connaissant l'homme le premier ministre Amadou Ba mi nga xam ne Sénégal moo ko tax a ñor Amadou Ba guddi ak bëccëg liggéey rek la xam Amadou Ba c'est un cadre. Amadou Ba et compétent Amadou Ba c'est la personne idéale pour vraiment diriger ce pays en tout cas émergence bi nga xam ne le président Macky Sall tàmbale na ko man gëm naa ne Amadou Ba d'ici 2035 mun na ko eggale. d'accord Amadou Ba loolu nga wax yëpp rafet na ci moom mais xam nañ na déjà ci biir parti bi am na waa dissidente yoo xam ne nee nañu euh, choix bi baaxul c'est l'exemple du de monsieur Guèye maire de Sandiara boo demee Kaolack kii di Abdoulaye Xuma nee na Amadou Ba moom démissionné Benno Bokk Yaakaar wala sax ci biir APR moo ko gënal mu dimbali ko en 2024 parce que moom mënul xalaat naka la président Macky Sall jëlee nit koo xam ne musul gagné élection ñu jiital ko pour ñu yaakaar ci moom mu mën a gagné élection législative ban tontu ngeen am ci loolu. non tontu bu may andi ci loolu man euh, boo ma euh, waxee sax euh, ay ñoom ministre Aly Ngouille ñoom Mame jaawo ay ñoom euh, Abdoulaye Daouda Diallo là vraiment je peux te je peux te répondre mais boo ma waxee xumma man xaw ma sax kan mooy xumma très sincèrement yow da nga xam xumma da xam xumma fan la toj da nga xam xumma fan la mën a gagner élection wala xumma fan lay militer donc il faut qu'on soit sérieux gis nga Sénégal du lu ñuy caaxaanee Sénégal du réew bi nga xam ne dañ koy caaxaanee Sénégal depuis Senghor ba le président Macky Sall dafa am ci ay loxo yu ñu nekk donc tey bu ñu koy tegaat ci loxo dañ koy teg ci loxo bu set. dañ ko teg ci ñi nga xam ne xam nañ ne ci mën na jëmale Sénégal ci kanam. mais moi vraiment duma fi nekk di tontu des gens ñi nga xam ne ils sont insignifiants très sincèrement parce que man kooku ki nga wax noonu man personnellement xaw ma fu mu sa gagné. d'accord c'est vrai donc mais en dehors de Xuma Xuma c'était juste un début euh, de de ci ñi nga xam ne quand même <laughs> nañu seen bopp ci ñàkk ànd boo xam ne euh, ànduñu ko ci tànn bi nga xam ne tànn nañu ko kii di le premier ministre Amadou Ba euh, boo jëlee ci biir APR rebelle yëpp entre guillemets Mame Boye inspecteur des impôts et Abdoulaye Daouda Diallo moom it ci domaine boobu la bokk inspecteur des impôts et domaines moom Amadou Ba est-ce du inspecteurs yi ñoo ko miine ñoo fa nekk bombo yi nga xam ne bëgg nañu exploser tas yaakaar bi nga xam ne am ngeen ko autour de Benno Bokk Yaakaar. loolu loolu loolu parce que tey ci euh, nga waxal ni sama mi sax impôt domaine laa nekk donc je crois que loolu loolu loolu loolu chance la loolu chance la quoi ci ñoom ñi nga xam ne yàlla moo ko def ren en 2023 wax dëgg fa yàlla foo tourné da ngay dëgg ne. les les potentiels vraiment ci impôt domaine lañ nekk donc je crois que loolu tamit liggéey bi nga xam ne ñoom ñoo ko wone c'est en fait en fait en fait en fait voilà voilà ñoo ko wone aujourd'hui bu ñu xoolee le parcours du premier ministre Amadou Ba donc nañ xam ne am na fu mu jógee te am na fu mu egg tey donc moo tax nit ñi am yaakaar ci moom au-delà même des politiciens sénégalais yi aujourd'hui man gëm naa ne fii ba Ziguinchor Bignona Oussouye Marsassoum nga dem ba Kolda nga dem ba Fouta nga dem ba Saint-Louis nga dem ba en fait quatre coins du Sénégal ku nekk tey da nga gis sa bopp ci le premier ministre Amadou Ba parce que naa la Sénégal réew jàmm la Sénégal mag yi baax yi ñoo fi ñaan donc Sénégal encore une fois on a besoin de quelqu'un bi nga xam ne am na am na éthique am na valeur vraiment mais surtout am na compétence parce que nag le premier ministre Amadou Ba balaa muy dugg ci politique c'est un technocrate donc encore une fois maa ngi tàllal sama loxo en tant que collaborateur direct du premier ministre eh, Aliou eh, ministre Aly Ngouille Ndiaye ministre Abdoulaye Daouda eh, président Abdoulaye Daouda Diallo le directeur Mame Boye Diao c'est pas encore trop tard donc nañu ñëw accompagner seen frère nañu ñëw accompagner le président de la République nañu ñëw nangu li président Macky Sall wax pour le Sénégal au-delà de leur personne mais pour le Sénégal parce que c'est le Sénégal qui est en donc encore une fois moo tax man xam naa ne le premier ministre Amadou Ba attan naa taal otom dem ba Linguère dem seeti Aly Ngouille Ndiaye attan naa taal otom dem ba Podor dem seeti Abdoulaye Daouda Diallo naa taal otom dem ba Kolda pour dem seeti Mamboy Diaw loolu yëpp pour le Sénégal mais yéen inspecteurs yi impôts yi yéen souvent dañ leen di reprocher réy bi nga xam ne nekk ci yéen jàpp ngeen ne Sénégal fii ku fi aay yéen a gën aay ki fi man yéen a ki fi jéem yéen a ko gën a xarañ mais est-ce que loolu déjà bokkul ci loo xam ne euh, moom mooy doon li plombé élan bi nga xam ne Amadou Ba am na ko bu fekkente ne Mame Boye dafay demal boppam Abdoulaye Daouda Diallo nii nee nañu wax na waaw nii nee nañu non mu ngi hésité ba tey est-ce que du du faiblesse au lieu que mu nekk atu ci seen rang yi. mais mais mais je crois domaine débat c'est le Sénégal quoi je crois que c'est le Sénégal donc. yéen a réew mi fii impôt euh, parti PDS APR moom a fa nekk. donc mais ñu nekk impôt. c'est des Sénégalais comme yow comme keneen ak c'est des Sénégalais. Sénégalais lépp loo gis lépp loo gis aussi moo ko dogal yàlla moo ne peut-être que en 2023 ñi nga xëccoo réew mi peut-être que voilà voilà voilà voilà waa impôt domaine la ñuy doon non ñoom ñoo ñoo lombe réew mi Ousmane Sonko mi nga xam ne li fi am yëpp kenn mënu ko ci génnee depuis 2021 depuis bu mu duggee ci politique ba tey coow lii entre yéen la et puis ba pare Amadou Ba ñoo ngi koy tuumal tamit lonko boo xam ne lonkoo na ko ak waa Pastef surtout ak Ousmane Sonko loolu est-ce que du bokk ci loo xam ne doon loo xam ne moo tax gars yi bëri nangoowuñu euh, en tout cas soutenir ko ci biir benn bokk yaa yaakaar. non en fait dama dama jàpp ne si nga euh, le premier ministre Amadou Ba ku am kóllëre la le premier ministre Amadou Ba naa la dafa am ay valeur yu ñuy inculqué ci moom valeur boobu politique du tax mu bàyyi ko day det parce que politique jaru ko politique day jeex gis nga tey ana président Abdoulaye Wade ana Abdou Diouf Senghor dem nañu donc le président Macky Sall mu ngi nii fii ba 2023 bu ci yàlla àndee day dem keneen mooy 2024 day dem keneen mooy ñëw donc ku fi ñëw aussi yàlla na doon le premier ministre Amadou Ba mais nu mu yàgg-yàgg day dem keneen mooy ñëw donc politique warul andi xaajaloo suñu biir politique dafa ñu war dajale uniquement pour le Sénégal parce que lii yëpp c'est pour liggéeyal suñu réew te man gëm naa ne le premier ministre Amadou Ba c'est la personne idéale pour mu jëmale Sénégal fu mu bëgg a dem. d'accord seetlu tamit euh, Amadou Ba à fois que ñu jiital ko. mu nekk en service pour l'État mu am ay ndombu tànk mu am ay responsabilité étatique élection yi nga xam ne dañ koy amal fii ci Ndakaaru Njaay benn bokk yaakaar da ko gagné mais ñu seetlu à côté aussi qu'à chaque fois que Amadou Ba nekk hors de jeu manam ñu jëlee ko ci ñu nangu ay ndombu tànk yi ñu nga xam ne dénk nañ ko dafay daal di perte élection benn bokk yaakaar day perte élection ci ndakaaru Ndiaye ndax est-ce que du Amadou donc moom mooy xeex waa benn bokk yaakaar ci biir ndakaaru pour won leen ne moom moo fi nekk bu ñu naree gañ foog ñu jaar ci loxo. non mais li nga wax ni li nga wax ni dafa am solo donc ñoo bëgg Amadou Ba rek kon dafay mel ni waa ndakaaru ah ñoo def Amadou Ba Amadou Ba seen biir xol non mais Amadou n'a jamais saboté vraiment ah ay élection ci ci ci maanaam ci ndakaaru wala ci parcelle gis nga Amadou Ba hmm, c'est en la ko président de la république Macky Sall ne ko dama bëgg nga ñëw jàppale ma politique ci Parcelles Assainies ci Ndakaaru bu mu ñëw 2016 dafa fekk en 2000 demoon ci élection locale pratiquement à Dakar on a perdu beaucoup de communes on avait gagné qu'une seule commune mooy la commune de Yoff mais Amadou Ba bi ko président yabalee bu mu ñëwee mais en 2016 bu mu porté brassard bi il a gagné les élections référendaires à Dakar bu mu ñëwee en 2017 mu porté brassard bi Dakar a gagné les élections législatives ci Dakar sa montre que ni waa Ndakaaru Amadou Ba la ñu bëgg maintenant am ay élections yi nga xam ne dem nañ ko ci diggante bi am na lu bëri lu changé Amadou Ba n'était pas candidat directement électeurs leen a forcer grand dañoo toll jamono bi nga xam ne gis nga sa doom sax bi nga jur mënoo ko defaloo li nga xam ne buggu koo def donc aujourd'hui nit ñi dañoo jàpp ne la personne de Amadou Ba compétence am gëm-gëmam ak ak nu mu mel valeur bu nekk ci moom ak xam-xamam buñ ko denkee dara am nañ yaakaar ci moom mais bu ñu jo bu ñu ko denkee keneen nag nit ñi sont libres Amadou Ba nag dina def lépp lu mu mën mais nag munul munul jàpp loxo ku nekk yóbbu la ci ci yi mun na la votel diw mun na def campagne ñun baatam nañ campagne ak moom mun na def lu nekk lu mu mën mais nag nit ñi aussi kenn moomu leen. nu doon battre campagne ñoom xam nañu ko ay ay soi-disant campagne rek la doon def de defu ci ay moyens yu bëri yooyu de xam nañ Amadou Ba bu taxawee. ba bu boppam ba dugg ci Ndakaaru Njaay wàccee fa lu man mën ci doole quand li ngeen amoon ni doon ngeen mën am lu ëpp loolu. ma ma jox la benn benn anecdote élection locale yi yi passé au Parcelles Assainies Amadou Ba bu demee sa campagne Parcelles Assainies xam nga gars yi lan lañ koy wax bu dee yaa nekkoon candidat on allait voter pour toi mais comme nekkoo candidat nag ñun nag ku ñu neex la ñuy votel Amadou wax wax wax wax ba sonn mais nit ñi ñoo moom seen bopp ñoo moom seen i carte seen discours mooy bu dee yaa nekkoon candidat. on allait voter pour pour vous. mais comme nekkuloo candidat ñun nag suñu carte ñoo ko moom mais lu mu mën yëpp def na ko mais nag am na li nga xam ne ma ne moo waral nos leaders politiques parfois seen choix yi dañ koy war a xoolaat bu baax parfois maanaam choix yi ñuy def dans les dañ ko war a xoolaat bu baax parfois conséquences yi foofu lay jógee du parce que dañoo bañ président de la république wala dañoo bañ ma sama wala ma dama mais parfois choix bi la ñuy contre te am nañ ci droit. élection locale yi boo paase euh, bu paase boo gisee Benno Bokk Yaakaar perte ci beaucoup de localités problème choix lañu amoon c'est ça aussi la vérité il faut oser le dire. mais problème d'investiture wala loolu mooy problème choix rek problème parce que y a euh, des nga xam ne ñu ñu fa tàbb mais gars yi am nañu ak ñoom. loolu aussi loolu mooy dëgg maintenant loolu leçon la à l'avenir donc gars yi nit ñi bu ñuy choisir responsable yi nañ xool bu baax. choix bi bañ a doon choix bi bañ a doon choix bi nga xam ne man choix yaa ma neex la mu doon choix bu logique doon choix bi nga xam ne loolu mooy bëgg-bëgg population bi te jamono yi bëgg-bëgg population yi Amadou la. d'accord Amadou Ba au-delà de l'inspecteur qu'il est au-delà du commis de l'État qu'il est au-delà même de de quelqu'un qui a été dans le gouvernement du président Macky Sall depuis le début presque on peut le dire ainsi après avoir traversé des postes stratégiques comme le poste de premier ministre est-ce que jàpp pour que mu mën a am maillage national avec une élection aussi importante que élection présidentielle ndax loolu rek doy na. non en fait avec une élection aussi importante que une élection présidentielle donc je crois que nit ñi dafa am lu bëri lu ñuy lu ñuy fàtte Amadou Ba dafa am dafa am jaar-jaar Amadou Ba bu mu génnee euh, ENAM nekkoon na ay chef de service dans les régions fu mel ni ay Diourbel demoon na fa. aussi nekkoon directeur général impôts et domaines donc mu ñëwaat encore nekk ministre de l' économie des finances et du plan nekkat encore ministre des affaires étrangères te nit ñi dañuy fàtte Amadou Ba nekk na député à l' assemblée nationale mu nekk tey premier ministre. voilà voilà mu ñëw nekk tey premier ministre donc tey au Sénégal. amul voilà voilà donc donc donc tey au Sénégal amul fooy dem nga ne Amadou Ba ñu ne nit ñi xamuñu ko mais aussi am na li nga xam ne des na 4 mois cinq mois donc je sais Amadou Ba candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar il va faire le tour du Sénégal Amadou Ba candidat de la coalition dina dem seeti Sénégalais yi Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yaakaar dina communiquer ak Sénégalais yi Amadou Ba candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar dina bu nekk di nga gis sa bopp moom parce que li nga gëm li ngay incarné ak li nga wóolu ak ni ñu la yaree ni nga mel noonu ngay gis ci Amadou Ba parce que Amadou Ba ku dal la Amadou Ba ku yaru la Amadou Ba ku tey la Amadou Ba borom xam la dégg Amadou Ba ci benn scandale dans ce pays mosoo dégg ne Amadou Ba moo def li wala moo wax li Amadou Ba il est dans son coin ko sant lay def lu ñu ko santul du ko def moo tax la preuve candidature yi nit ñi bu ñu jóg candidat la candidat la vous n'avez jamais entendu Amadou Ba ne man suis candidat mais sénégalais ñoo xam ne Amadou Ba candidat boo demee dans les réseaux sociaux dañu ñoo xam ne Amadou Ba yaay suñu candidat donc loolu yàlla moo koy def il faut que aussi. yàlla rek yàlla yàlla sax xam naa li ngeen liggéey bi ngeen di def ci ginnaaw quand même <laughs> loolu si loolu réseaux sociaux moom kooku yàlla. non mais Kande Kande tey tey Kande Kande tey mun naa la wax benn affaire. Mhm. Kande man je suis proche du premier ministre Amadou Ba dama ko jege. comprendre mais musuma toog ak le premier ministre Amadou Ba mu ne ma Sissoko dama bëgg nga dem ci réseaux sociaux wala nga defaral ma lii. le gars c'est un homme d'état il n'est même pas dans les détails grand Amadou Amadou Ba bu ne la weex na weex na bu ne la ñuul na ñuul na Amadou Ba du yabal ay nit Amadou Ba lu muy def daf koy assumer bu gëmee dara daf koy def ak tey ak yar amadu Ba musul yabal nit ne la porté sama candidature man bokk naa si ñu ñu ko jege pour vous dire musuma wax ne Sissoko dama bëgg ngeen dem ci réseaux sociaux yi pour ne la suy candidat bu mu demee bu muy dem 7TV ñun bu ñu fay dem wallahi yëgu ko il n'était même pas au courant mais am na li nga xam ne tamit ñun. dañ koo gëm non non non non am na li nga xam ne ñun dañoo gëm Amadou Ba ba lépp lu ñuy def gannaaw duñ ci am sago parce que dañoo gëm ne waa ji c'est une solution pour le Sénégal. waa ji le Sénégal a besoin de Amadou Ba pour se réconcilier parce que nag politique dafa yàq lu bëri grand te politique da ngay dem ba ñaari nit ñu bokk ndey ak baay ñu bañante du ñu tuddante ngir politique. tey dem politique tax ba ñuy saaga kii suñu kilifa diine yi tey politique tax ba gars yi di saaga borom xam-xam yi. donc politique boobu dafa dañ Sénégal parce que sénégalais yi xamuñu loolu Amadou Ba solution la pour bu ñëwee mu réconcilier les sénégalais Amadou Ba solution solution la bi nga xam ne pour bu ñëwee Sénégal nu ñu ko xamee Sénégal day dellu foofu. gis nañu quand même mu commencé di di couper su les pieds l'herbe sous les pieds de de de de Mame Boye mu jël koo xam ne booy la boo xam ne xam nañ ne euh, en tout cas <laughs> ci biir Kolda la rek ngeen dollil ko ndombo tànk. pour que mu gën a faiblir affaiblir kii di Mamboy euh, est-ce que teelul ci xeex yi nga xam ne euh, moom dugg na ci déjà. donc moo tax man la Amadou Ba nit la bi nga xam ne day Amadou Ba day assumer ses relations lépp lu muy def maanaam Amadou Ba du defantu c'est pour moi de féliciter mon ami et frère Abdourahmane Baldé Doura bi nga xam ne Kolda am nañ ci moom yaakaar parce que nag ku bëgg Kolda la ku gëm Kolda la Doura musul am poste de responsabilité mais lu muy def Kolda. à part le ministre Moussa Moussa Balde amul kenn ku koy def Kolda ci social. c'est ça loolu mën naa ko seede mën naa ko seede. gis nga à part le ministre Moussa Doura lu muy def Kolda amul kenn ku ko fay def ci côté sociale te pourtant nag. même Moussa pare nag investir fa macha allah. non dama ne même Moussa Balde sax ministre dafa am responsabilité mais Doura amul responsabilité te dafa tabax ay infrastructure Doura dafa tabax ay boulangerie Kolda employé les jeunes. di leen fay par weer Doura dafa jël ay jeunes Kolda jëlee leen Kolda andi leen Dakar jox leen ay emploi mu ay jox leen leen di fay donc kooku bu ñu ko promouvoir waa Kolda yëpp dañoo war a tàccu mais nag nañuy taccu nañ ko accompagner espoir la parce que ki nga xam ne amal na boppam mu leen di jàppale tey bu amee peut-être que bu bu gën a amee je crois que dina dina dolli tey jeunesse su Kolda yëpp li ma leen di wax mooy c'est Doura l'homme de la situation. non man je ne parlais même pas de Mambo Dia mais Doura moo mën a jàppale la jeunesse de Kolda pour xëyu ndaw ñi ak leneen ak leneen li nga xam ne peut-être que man moom mosoon na am yéene bi parce que man c'est un ami on en discute très souvent donc Doura colda rek la gëm Doura colda moo dee ci biir xolom donc kooku lépp lu ñu ko dox Kolda la koy yóbbu am na solo léegi ci biir Ndakaaru Ndiaye déjà gis nañ ne Ablaye Diouf saar moom suba teel la ne waaw te xam nañ ne moom ak Amadou Ba. daanaka du ñu bokk jaaro duñ jaaroo taal eh, eh, nax la demee est-ce que Amadou Ba quand même jaarul ci suuf dem négocier ak grand bi nekk waaw affaire yi ñoo ko bokk est-ce que le combat de Dakar sera facile pour vous. dama la ne Amadou Ba encore une fois bu Sénégal taxawee suba attan naa dem ci xalifa Sall mu ne mu négocier ak moom pour le Sénégal attan naa dem ci candidat yëpp négocier ak waxtaan ak ñoom pour le Sénégal. même Ousmane Sonko. parce que Sénégal moo ko jaral. même Ousmane Sonko. dama ne Amadou Ba Sénégal moo ko jaral loolu képp ki nga xam ne nag Sénégal moo tax a jóg képp nga xam ne pour liggéey Sénégal moo tax a jóg waxuma nag ñi nga xam ne ñu ngi def leen neex mais képp ki nga xam ne da nga respecté charte réew mi képp ki nga xam ne da nga bëgg Sénégal képp ki nga xam ne Sénégal moo la tax jóg Amadou Ba pare na sol dàllam pour dem waxtaan ak yow pour le Sénégal. d'accord on arrive à la fin de cette émission am am nga beneen préoccupation. non préoccupation bi mu am mooy di tallal euh, suñuy loxo waa Parcelles Assainies ni président Macky Sall daf ñoo sagal tànn suñu doom Amadou Ba tallal suñu loxo waa Ndakaaru tallal suñu loxo waa Sénégal. parce que Dakar musul am candidat à une élection présidentielle euh, venant de la mouvance présidentielle. non nga sax Dakar musul am candidat mais man bugguma sax. ñu président du moins. non non non xam nga Dakar sax musul am président mais bugguma man ñu yemal ay affaire ay Dakar ay Casamance ay Kees ay truc man loolu seen man loolu gëmuma ko man dama gëm ne Sénégal ci est en au-delà de Dakar Sénégal moo nekk enjeu te wax naa la encore une fois le premier ministre Amadou Ba Sénégal jaral na ko lu nekk le premier ministre Amadou Ba gëm naa ne c'est l'homme de la situation en tout cas ñu ngi ñaan ñëpp surtout waa APR nañu bokk ndey bokk baay accompagner la candidature du premier ministre Amadou Ba waa Benno Bokk Yaakaar la grande mouvance mais surtout les Sénégalais ñi nga xam ne ku nekk wax naa ko fi léegi-léegi ni mun nga gis sa bopp ci Amadou Ba parce des valeurs Amadou Ba incarne l'éthique Ba c'est un technocrate Amadou Ba nit la bi nga xam ne ku am fulla la ku am fayda la Amadou Ba nit la bi nga xam ne Sénégal am nañ yaakaar ci moom te yàlla bu yaakaar boobu tas. te daal bi nekk ci président Macky Sall gars yi nee nañu mu ngi ci moom. non en fait nee naa la Macky Sall du def dara par hasard Macky c'est un génie politique bu choisir Amadou dafa gis boppam ci Amadou Ba wala gis bopp bopp Amadou Ba ci moom donc Macky Sall ak Amadou Ba maa ko fi tey c'est des jumeaux. merci beaucoup monsieur ñoo ngi lay jaajëfal. di kontaan ci nangu bi nga xam ne nangul nga ko invitation bi euh, di la dig daje ba beneen yoon ci beneen plateau peut-être après 2024 boobu gunge ngeen def sa waa sa palais de la république. waaw incha allah xam naa ne yéen waa Sénégal moom bu ñu gagné élection présidentielle yi moom yéen moom premier interview bi naa ne le président Macky Sall mu accordé leen ko quoi. et le président le Amadou Ba incha allah mu accordé premier interview waa Sénégal quoi parce que yéen merci jërëjëf mbokk internet yi ñoo leen di jaajëfal di leen dégg daje ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com jërë jëf.